sëriñ bi dañu sëkk tey ëllëg kon nag nañ ko fas yéene nañ ko fas yéene liggéey liggéey. waaw ah, bisimilah yiy ziaraat bu baax di ndiwaat bu baax bokk taalibe yi comme niñ koy defee rek doon wéyal ziar yi nga xam ne dañ ko amal ci kër xalifa diine yi ñoo ngi fii ci kër sëriñ Cheikh Ndiaye Thiergane di xalifa sëriñ Massamba Ndiaye Thiergane eh, di leen ziar di ko ziaraat bu baax a baax di ko joxal wàccuwaayam xam naa dañuy daal di jox ko kàddu gi rek wala ñu jox ko ki nga xam ne amaan moo yor kàddoom mu. Euh, fàttaliwaat mbokk taalibe yi li nga xam ne amaana moo sabab màggal gi fàttaliwaat tamit mbokk taalibe li nga xam ne amaana mooy man a sàmm fi nga xam ne moo lañ nekk muy mexee laa ba dëkk bi xam naa kon ba ngir bañ a guddal rek dañuy jox euh, ki nga xam ne mooy sëñ Mor Diarra yor ak kàddoom ak yor yor ak kàddoom mu daal di mën a naa kon bisimilah auzu billahi alamin asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi dëkkandoo yi taalibe yi xarit yi am na jàmm yi ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp ci kenn ku ci nekk ci aw turam ak santam waaye nag jël nuyoo ba teg ko ci loxool Serigne Cheikh Ndiaye Thiargane mii xalifatu ma Massamba Ndiaye ak mboolem njabootu Cheikh Massamba gépp ak sët Serigne Massamba yëpp ci ñi nga xam ne ci ci gën a màgge ba ki ci gën a suufe di nuyu dëkk bi ak li wër dëkk bi di nuyu réew mi ak li war réew mi di leen jaajëfal jaajëfal gu njëkk ak gu mujj muy tey jii te yàlla bu mu doon tey sax na doon ay ay ay mu jël sëriñ bi mu ngi leen di yu baax mu ngi leen di sant bu baax mu ngi leen di gërëm bu baax mu ngi leen di ñaanal taxawaay rafet na matale na ndax am na loo xam ne su ngeen ko mënutan moom dina jóg takk ak laxasaayam wut ñu mu àndal ba bis bi jag daanaka mën naa ne jugul fi mu toog bis bi jag na loolu nag li ko waral mooy sëñ Mbay Cargaan defalu leen ko ko defalu leen ko kenn Cheikh Babacar Ndiaye Cargaan ngeen ko defal Cheikh Babacar mi tax ngeen def nag euh, yàlla na leen fay te bu leen fayee du ngeen perte waaw kon li tàmbalee ci man ba ci ki gën a doon gone nañ gën a takkaat suñu laxasaay te gën a góorgóorlu ci Cheikh Babacar Cargaan ndax day mel ni ci li ma war a wax su ma ko fekkee war naa ko wax wala bu fekkee am na wax naa ko te am ñoo xam ne si dañ koo dégg te diggéen woon neexu leen maa nga leen bal wax wax ne day mel dafa lugun siñu béykat gaan dara wala day mel ni ren jii lañ doo ko dooraat ak magal ren lañ doog a tàmbaliwaat ak magal sëñ bay nag ma toll noonu ndax koo xam ne si dafa yenoo fi am néeg wut ay kilifa yu mag ay kilifa ñu yenoo fi am néeg def tànki neen dem bañ jaareem te néeg bu laaleel suuf kooku lu ko waaye defal lu ne day mel ni boo jeexalee ren jii ci màggal gi da ngay sosaat nañ nan nan nan nan xamaat suñu bopp xam li ñu yàlla may li ñu yàlla may yombul de boo ko doon xool tey ci cheikh yi Serigne Touba cheikhal du ma ne li sëñ Mbaye Thiargane am ñëpp ko am waaye ñu ko am bariwut kon nañ xam kan mooy sëñ Mbaye Thiargane li mu defal day wax na sama classe gii toog ak ñu mel ni sëriñ bi toog ak ñeneen ak ñeneen amuñu ab tool amuñu ab got ab gopp amuñu paaka amuñu si fii la ñu toog te xaar sëñ Mbay Jagaan sëñ Mbay fekk sa fas lépp kon loolu nun tàmbalee liggéeyal bi sëñ Mbay Jagaan ci ñun la ci ñun ñi ay satam ci ñun la wax kon sëriñ baa sant loolu di leen gërëm baax a baax di leen ci ñaanal yàlla di leen ñaanal jàmm ab xolam see dund guy yaakaar amit dolli ko na suñu yaakaar yàlla mu tas suñu yaakaar yàlla bu mu tas ci barke sëñ Mbay Jagaan ngeen jéggal ma nag ci kàddu yi guddi gee gàtt gi su baaxee ci sëriñ bi la waaye bu amee lenn lu ci jagar ci Mor Diarra Ndiaye mii la ba baal ñu àq ci bañ a àq salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala xayri xalqillah asalaamaaleykum yéen ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam ci ndigalal sëriñ Cheikh Thiargane mi dadi nag ndigal moom da ndigal moom ndigal rek la day du du du suñ ko mën na ñàkk lu jëfe ko waaye danoo mënta wax waaye nag bis bii nga xam ne mooy bisab sëñ bay Baye Thiergane bisab cant la bisab ngërëm la bisab xiiwal la bisab dolliku la kon yi ko sëñ jaar a waxee rekk nañ ko ne jàppe fase ko ni te doo doolee fiddiwaat ak laxasaay te doo góor góorlu ci ak taalube ak jëf ki ndigal ak bàyyi tere waaw ndax sëñ Tuubaa kat la mu fi nekke woon digal ko mag ñoo ñi nga xam ne bii ñoo di sunuy maam muy sëñ Mor Awa Ndiaye ak sëñ Mbay Jargaan mi nga xam ne ay wëlëre lañu wëlëre yooyu ñu doonan sama wajur ak seen wajur ñoom ñii di sëñ Cheikh Ndiaye Jargaan ñu fëddali wëlëre woowee ba tey ak njaboot jóge na fii ñëw ñëw ñëw daaru ba ba am fa njaboot nuy benn képp kon sëñ Tuubaa moomee la mu digle woon mooy la yàlla digle rek la mu tere mooy la yàlla tere rek kon nun ñëpp nañ tënku ci digal tënku ci bàyyi tere tey jëf li tey tey tey jëf li li ñu digal rek noo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp nag di ñaanal ñëpp ak mucc ak jàmm ci bàkkañ Tuubaa xasaay bi jërë ngeen jëf li nga xam ne yéene nañu ko ci bisab sëñ Mbay Cargaan bi te mënulu nu ko sunu bopp man ak samay bokk li nu yéene ci bisu sëñ Bassirou Diakhaté mënaluñu ko sunu bopp commission baa ngi nu koy defal ci biir réew mi ak ñu ne ci biir réew mi ñu ne ci bitim réew loolu ma jóg li ma ci jublu mooy dolli leen a soññ ñu gën a góor góorgóorlu li na ci yéene te mënaluñu ko sunu bopp ñu nga nu koy defal li na ci bëggan te mënaluñu ko sunu bopp ñu nga nu koy defal kon noo ñaan ñaan ci yàlla ak borom bis bi luñ ci nit def ren man ci déwén lu ko ëpp ci darajaay Cheikh Babacar Ndiaye Thiergane barkeb ma Massamba noo ngi soññu képp koo xam ne bokk nga ci kër ma Massamba jëwriñ yi ci seen kanam fu ñu leen woo nañu fa uyu ji ñu ne ci biir réew mi ak ñu ci bitim réew mi ndax ñu ne bitim réew kenn ku ci lañu kenn ku ne kër gu ne ci kër baabu Cheikh Babacar Thiargane yi lañ ca war a def ba ca mayal def nañu ko ca loolu nag booloog taalibe yi maanaam mooy tax kon noo ngi soññu ko aju ci nun ku ne di ca uyu ji di uyu ci liggéey bii ñu nekk itam ci biir réew mi ak ci ak ci ak ci kii bi jumaa ji mësunoo taxaw fenn di laaj kenn te lépp ñoom taalibee yee na ko sëñ Saliou Mbacke waxaan rek ne lépp taalibe yee lépp taalibe lépp taalibee sëñ Bay ca gànn kenn ëpp ko kon doolee booloo ñoom ndaw ñi doolee déggante doolee toppante lu ñu bëgg ci dëkk bi ak njobootu sëñ Bay ca gànn dinañu ko mën ñoo ngi leen di sant ñoom ñëpp di leen gërëm di leen ñaanal noo ngi ñaan yàlla ko fi teew yàlla faj say aajo te jéggale say bàkkaar barke Cheikh Bakar Ndiaye Thiergane alhamdulilah rabbil alamin alim wala laalina amin allahuma ya jami ajmali jami una shima wa alim wa saqar um li atuna li ban wa bin ja kulla yawmin taw an wa kar an bi arqi an kulla babin kuntu fatiha wa li salli ina min al khairati ya allah barke Cheikh Bakar Ndiaye Thiergane sëriñ bi doon sëkk tey ëllëg kon nag nañ ko fas yéene nañ ko fas yéene liggéey liggéey